may dalal seen xel la ma dund foofu dafa gën de yokk dafa gën de dafa gën a sama engagement pour liggéey ngir suñu réew defaraat defar suñu réew ci fànn boo xam ne bu ak sénégalais bu nekk di nga dafa réew moo xam ne comme ni ko assise nationale yi nga xam ne mooy suñu base gis-gis ak stratégie ak orientation tëgër dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou politique am mais surtout li ci am solo mooy nit ki chaque sénégalaise et chaque sénégalais yaay manal di matal di mottali defal sa bopp kenn bañ a toppati ci kenn di lappi-lappee ka yaakaar ak ñaan nañu yeewi nit ñi li koy def jàng la système éducatif bi ñu xoolaat ko formation professionnelle bi ñu xoolaat ko xool nag nan lañuy ñuy doxale réew mi ba yenn tolof-tolof yi yenn jalgati yi ak yenn yi am ñu créer état ñu gën a dëgëral suñu état état boo xam ni institution yi ko composé bu ku ci nekk sa rôle di ko jouer normalement parce que loolu am solo soo gisee citoyen gëm état c'est parce que état bi ku nekk la nga incarné ci sa wàll ci état bi da nga kaa fees dell te doo ci seet dara doo ci ragal dara doo ci ji dara loolu la ñu war réfléchir ñun ñëpp comme ñun nous n'avons pas de la science infuse nous n'avons pas de solution miracle gis nga fii bu kenn yaakaar ni nit kuy cëpp ci asamaan nga ni de fii réew mi mooy ñun ñëpp ñu ànd waxtaan suñu ñun